univers carcéral comment désengorger les prisons. parce que lépp dafa am solo ci ci dialogue bi effectivement c' très très important comme li nga xam ne euh, univers carcéral parce que man euh, sama thèse maa ko bind ci côté science pénitentiaire mooy ñi nga xam ne noonu la ñuy nit ci prison. parce que juge boo xoolee bu la bu tëjee nit rek pratiquement mission accomplie na. léegi hmm. beneen juge ak yeneen organisme mooy gérer nit ki. Hmm. mais juge bi la condamné day rangé. avant léegi nag la condamnation. waaw mooy mooy li ma la bu fekkee ne tribunal rend la décision nit ki dañ koy jël confie ko ak koo xam ne administration pénitentiaire. ñoo koy jël. avant muy rendre décision aussi dès l'instant que ñu def ko mandat de dépôt. administration pénitentiaire waaw moom moo koy jël bu fekkee ne def na mandat détention provisoire. mais xam nga détention provisoire euh, bokkut ak euh, condamnation parce que détention provisoire kooku on n'applique pas une peine on n'applique pas une peine à un détenu provisoire. il n'est pas un détenu xam nga traitement yi du du du nekk benn ba tax na administration pénitentiaire pour désengorger prison yi il faut ñu jouer ci les infractions sur les peines sanctions yi parce que sanctions yi ñoo yóbbu prison bu fekkee ne sanctions yi c'est vrai que ñu ngi def ay modes alternatifs à l'incarcération di def ay amende def bracelet électronique yooyu baax na baax na quoi mais nag euh, il faut ñu gën a càmbaraat yenn infractions yi nga xam ne jarul dem prison parce que yenn yenn yenn infraction yoo xam ne pratiquement yow di nga ci yàqule moo ëpp li nga ciy gagné. Euh, hmm. te yow bi nga def c'est pas un fait très grave. yow nekk un la. Hmm? surtout doon hmm? garantie waruñu ah, moom moom lay wax. garantie de représentation. c'est vrai que Sénégal mi ngi def ay effort ci côté boobu. mais nag euh, ci texte yi waaw ci texte mi ngi def ay effort. parce que mais vous êtes d'accord avec un juge des libertés par exemple. ñu defoon un juge des libertés. waa juge de liberté moom c'est c'est imminent dañ ko war a def dañ ko war taxaw rapidement ñu ñu am ko Sénégal parce que boo xoolee vraiment ñi nga xam ne jàpp nañ leen seen liggéey yàqu bëri na. te mm-hmm. la limite le procureur il est irresponsable le juge d'instruction il est irresponsable boo yóbboo prison quel que soit alpha loo mënti perte moom c'est pas son problème. Mm-hmm.